ñu ngi koy jaajëfal la ci mu doy asalaamaaleykum ah le soleil yéen a kaay day professeur Moussa Seydi la xëyee muy xalamal nag président de la république Macky Sall mu jàppalee dooleel li nga xam ni moom moo di yi suñ ko dijee mel kan këf ki du foofu de mbir mi du foofu de ndax président Macky li mu def dafa mel xamu ko gaañ dañu ne geste barrière moom président de la république mu def geste ma lii président Macky def ci réewum Sénégal daal di dindi fi état d'urgence bi ñoom couvre bàyyi ak seen bopp vox populi ne ma moo tax it ndakaaru moom dañoo jaaxle ba xamuñu fu ñuy jublu kannaaw kàddu président de la république ki sàll yi seen yaakaar nag dafa yàkkeeku ñu ànd ci ak naqar waaye nag ànd ci ak gëm yàlla xam ni lii la yàlla dogal ci ñoom docteur Saare ne ñetti weer yii ma def ci pandémie bi di mbas mi dafa mel ni ñetti weer ci sama àdduna laa daal di ñàkk ndax coonoog tëñ-tëñ ak daw rek madame Fall ne dama ne nguur gii ku yebul jàpp ni mëntuñoo compter ci moom déedéet ku yebul dem ak sa cëggal guy nguur gi ba nañu moom docteur Tall

kenn xamu ko dina métti ñun ci wàllu wér-gu-yaram ndax wopp gi moom dana fi bari lool waaye tam sunu koom-koom dina nërmeelu jëm ci suuf moom monsieur Ndiaye ne ab njiitum réew daal dafa war a am gëdd ci askanam wan leen ni maay njiit te sama njiit dara mënu koo dindi source aanee président kay mani la dindi na état d'urgence bi de waaye wopp gi moom mi ngi woy di yaataa yimbe ci réewum Sénégal yéene kaay bi ne ma catastrophe daal la am jamono ji ci wopp gi di mbas mi maison d'arrêt ak correction di kaso ba nekk ci Jurbel ñu bëri waay ju am juróom fukki at juróom-ñeent nekkoon ca kaso ba moo am coronavirus moom waa ji hypertension la am ñu yóbbu ko ca infirmerie bu kaso ba fala wàllee major bu infirmerie ba juróom-ñaar ci ñoo xam ne ñoom lañ ko làq ndool jant ba wàll na leen te fii ak fukki fan mën nañoo xaar mu wàll ñeneen le témoin yéen kaay ne mani la mbas maa ngi ci réew mi de waaye général bi nga xam ne moo jiite woon senegal moom moom wàcce na armam ci guerre gi wàcce na boppam jébbalu na joxe boppam l'observateur ne ma moom président de la république day dindi état d'urgence bi waaye nag drame social bu mag am ci réewum Sénégal wàllu tourisme moom ay victimes yu njëkk gis nañ leen ca King Fahd Palace loyer ñi nga xam ne dañoo loué woon te président de la république Macky Sall ne woon bu kenn génne kenn soo moytul na génne yi dina tàmbali ni ki bi ñoom boîte de nuit ñu continuer tëj nee ñu boo moytul daañu attaqué président de la république cour suprême ëttu attekaay bi gën a kawe cay mbas mi l'observateur ne ma lu toll ci juróom fukki milliards ci suñuy ko ngir faj nag ñi am bi nga xam ne wàllu koom FMI ma ngay jaaxle nag ci dépense d'urgence yi nga xam ne ñu ngi day xam leen nag junni milliards yi naka lañ ko daal di jëfandikoo na fi ab plan boo xam ne day mooy doon plan de l'espoir turbine yéene kaay ne loo ci mënti déggit moom mii di covid 19 laal na bu baax baax réewum Sénégal ak koomam fi toll nii Macky Sall ci wàññi nag gouvernement gi la jëm ca la jublu de yéene kaay groupe des médias bi ne ma liste bu gudd bu ministre xam sax dañ leen bëgg a boole mu doonu benn ngir ña fay liggéeye wàññeeku dana taral mbir de moom président de la république Macky Sall direct news ne ma waxtu wa nga xam ne ña ngay wax waxu koom gu daanu tabaski baa ngi jub si njeextaluk juillet gi lañ ko war a amal laaj bi kay du ndax lu bi dina am lu mu jënde xar waaye ndax dina gis geenu xar geen geen bay jënd xar laas yéene kaay ne ma coowal suuf day jeexagul ci réewum Sénégal suuf sa sa ndeng leer moom ministre Abdou Karim Fofana xamle na ni mën nañ xool daal ab possibilité boo xam ni daañu collaborer ñoom ci seenu biir 24 heures jàmm ca Malika day coowal suuf tàmbali na fa ña nga joxoñ baaram ak tuuma nag maire ba di Momar a Gajaga ak koppar goo xam ni jébbal na ko trésor descos daf caa dugal loxoom dal di daane lu toll ci téeméer ak ñeen fukk ci ay bâtiment regroupement bu collectif ñamoom tool ak terrain ca Cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ña ngay laaj nag la nga xam ni moom nañ ko te yàq ko te teguñu ko fenn Les Échos yéene kaay ne ma DSP day ña ngay setal seenu bopp ci li ñu ney takk der yi dañu doon saax ñoo xam ne dañu doon toogaanu ñaxtu waa DSP ne léeg daal image yi mooy indi jafe police daal ña nga woon ca la ñu nekkoon réew mi de la ñu nekkoon jóguñu ca ca ñaawteef réew mi quotidien ne ma pédophilie bi détournement viol waaye di wan looloon xale day mi ci réew xale yooyu nag ñooy wax ci réew mi quotidien kenn ki ne moom dañu maa violé daal di may ëmbal ki ne moom 1000 francs la ma jox laataa mu yegg sama kaw keneen ki ne ab sëriñ moo ma jox junni ngir ma noppi keneen ki ne moom sama far moo ma violé ci sama lalu yaay keneen ki moom nee na ci auberge lañ ko ko defee mangoog réew mangoog ku virus mi ngi fii nañuy takk masque yi di raxas loxo yi respecter distance su un mètre. bu doon guerre la de. dañ naan Macky Sall da wàcce na drapeau ba ubbi tribune yéene kaay nañu général Macky Sall da daal dinay signé na kon armistice maa la wax loolu de parce que état d'urgence ba de ak couvre-feu ba tey lay jeex allahu akbar laa ilaaha illallah dama ne la suñu frontière yi ci kaw jaww ji de waaw fukki fan ak juróom ci weeru juillet bii di ñëw lañ koy ubbi ey eh way samba xeex leen ngir rawale kon seeni bakkan lu waay xam boote doomam président Macky Sall ci discours am bi dem de waaw nee na lu tolloo juróomi téeméer ci ay médecin junni kon ci ay agent professionnel ci wàllum santé de danañ leen leen recruter waaye Moustapha Cissé Lo ah dem mu fëgg na gars yi ak de la témoin yéene kaay ne crise sanitaire coronavirus bi la ah bye bye état d'urgence ba kon dem na aja couvre feu ba dem na dama ne la président Macky Sall démb kon ba mu yëkkati kàddu de la xam na lu ni mel nag laa la wax exclusive yéene kaay ne waaye tey la général bi gën a taxaw de ah waaw Macky Sall nee na nañ leen xeex nañ leen xeex nañ leen jëfandikoo kon suñuy jumtukaay suñu kattanu bopp de ah waaw heure bi nga xam ne de kon gars yi delloowaat nañ ko ca sur quotidien Macky Sall kay ah, su doon ab jànq bu muuru la de dañ naan sànni na kol gax maar day taali maa la ko wax état d'urgence ba ko naaw na le soleil yéene kaay na dëgg la masum covid 19 ci la Macky Sall de nee na kon état d'urgence ba jeex na couvre-feu ba jeex na jàpp leen na sol masque yi de ci les publics yi waaw day continuer ba léegi ni le wàllu dem ngeeg waaye frontières ci wàllum suuf seeg géej de waaw dañ koy continuer ba léegi ni le quotidien yéene kaa ne geste barrière bu mujj ba dee laal nañu ko mooy état d'urgence ba waaw ak couvre-feu ba waaw léegi mbir ma jeex na doy na waar la doy waar kay enquête yéene kaay nee na président Macky Sall de suñu koom-koom gi ci boppam waaw bu doon dafa fattu de confiné wu ah Macky Sall de confiné na économie bi Macky Sall ke léegi ma nga ca ginnaaw mbas ma leer fa su covid 19 dëgg la Macky Sall nee na mënuñoo jël suñu bakkan yi lée ak suñu koom-koom gi daal di waaw nee na nekkul ne téeméer ak ñaar fukk juróomi médecin yi lé yuy jël at bu ne ah moo mën a fat li fi manqué di bi 24 heures yéene kaay ne léegi nag lu waay xam boote doomam ñu ngi doog a tàmbali nag lu waay xam boote doomam nag laa la wax grand place de paaka ñaari boor la de ngir mën a dund dëgg la dama ne la Macky Sall kay sukk na jébbalu nag ndax wàllum koom-koomam gi lé mën a jóg war a jóge ci 6 virgule 8 pour cent waaw teeree gi nag ci 1 virgule 1 pour cent am na ci ay secteurs yu bëree bëri kon ci wàllum koom-koom gi lé daal dinay wala boog ma ngay rala sentir dëgg la dundinu askan wi le ak dundinu kookam bi mbir mi bu doon nit la dañ naan dañ ko jam ci xol de dëgg la Macky Sall nag nee na ñett yi lée la ñu war a rawale war na ñoo rawale kon suñu bakkan rawale suñu wàllu wér-gu-yaram gi lée rawale tamit suñu wàllum koom-koom Sall ngaari lam sooro la ilaha illallah looloo tax nag ba président Macky Sall ah nee na état d'urgence de couvre-feu day kon ci guddi 23 lay jeex eh way samba doxi guddi commencé waat ne ko sa ginnaaw ba dang doxal sa dox ba kenn la la yow corona évidence yéene kaay ne boo bëggee dégg kay ah bi lañ bi daal gars yi lajj nañu ne dañoo échoué dëgg la mesure yéen jëloo nag ndigal yee état ba joxe woon nag dama ne la téyeewul doomu jàngoro ji la wàññiwul tamit dooleewu jàngoro ji vox li ne li koy mandargaal waaw Macky Sall kay daal di ne bàyyi nag doomu jàngoro ji la ngir daal di sauver nag wàllum koom-koom gi la ey eh way samba waaw président Macky Sall nee na mënuñoo bàyyee nag maanaam doomu jàngoro ji kon suñu bakkan yi la ak suñu santé wàllu koom-koom eh way samba dëgg la yéeni kaa gi la juróom-ñaar fukk juróom-ñeent ci boobee kenn deewul woon ñaar fukki fan ak ñett mars ah tey ñi ngi ci juróom benn junni ak juróom ñetti kaa allahu la téeméer ak juróom-ñetti ci ay doomu ñoo ñàkk seen bakkan ko ni ki démb 29 juin ndakaaru ñaay jël joob njaaréem ak Thiès waaw ñoo jël bee Macky Sall day waaw ndëgg sërëxal gi nga xam ne moom lañ ko gasal daal daal dina cay tàbbi la gën a farataal ah. wàllum urgence sanitaire di mbirum méru yaram gi lay ah, waaw dama ne la plan bi ci boppam boo sàgganee kon day la jaat syndicat des médecins te am na njàq rek tiis de ñiy gérer bois de nuit de seen yaakaar tas na dama ne la kaay garaaw ak ñi nga xam ne kon dañuy de day gën a yokk maar di tali libération ne kaay ne ah président Macky Sall ci jamono joo xam ne daal di ne dina nekk a jóge ci bitim réew daal di dikk kaa yaa a ak juróom-ñett nit ci ay doomu aadama yu dee ñetti fan fukka dee Ndakaaru njaay jël joo passé nañ léegi kon juróomi junni ci ay kaa Thiès fanweer ak juróom-ñeent ci benn bëccëg kese allahu akbar adduna bi deelee nañu ko juróomi téeméeri junni fukki million ci ay doomu aadama ñu ngeeg jàngoro ji direct news de en tout cas institut Pasteur de waaw daal dinañ koo tuddati nekkoon ci scandale bu bees ay faux négatif la dama ne leen lu ci tolloo juróom-benn way samba askan wa daale ñu ngay xeex rek kon te lekk ga umil sur sa ba ca boppam kon nañ doon jéema taal na benn këru délégué de quartier ndax cee bu mën soor fay bi may sa may délégué de quartier la Mbacke Bari waaw nee na daal seen plan ñu def samedi ji la ñu génn sama jarbaata ma yëgal lépp góor ak jigéen ña ca nekkoon dee mujj nañ leen a teg loxo vox sob ko dañ koo convoqué woon dee waaw ba muy dem daa gàddu saaku ceeb ba mu yóbbaale way samba saaku may rek na bàyyi gendarmerie def enquête ca jamono yoo xam ne nag maanaam askan waa ngay doomu jàngoro ja dee waaw tribune yéene kaay nee na waa kër Macky Sall dee ñoom moom ña ngay xeex seen biir ya jum wala waa jum dëgg la parce que Moustapha waaw dama ne la démb kon dal na ca kaw Abdoulaye Diouf te mar d'Italie xeexu Ndakaaru njaaj ak Jóob gi seen biir de yéene kaay dee jaagi ne remaniement bi ñuy laam-laamee laam-laamee de ña ngi opposition beeg société civile de danañ ca bokk tribune yéene kaa ne laaj bi kay mooy remaniement bi gouvernement bees bi waaw est-ce que am loolooy laaj wa de yéene kaa gi président Abdoulaye Wade de daal di ne delloo na kii ak jaale ko Serigne Pape Malick Sy xam leen ne surtout Alaaji Malick bi kenn du moom jàmbaar biñ ci kaso onkul sëqatul dem naa ca lamb ja source ané en tout cas diggante Gris Bordeaux de ak Balla Gaye de ah, Gaston Mbengue dox na ko de lamb ja taxaw na ah, ah. a <laughs> <laughs> waaye lamb jëdee ak lu riir mi bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri du ëpp riir pétrole ba de déedéet parce que suul gaz du ko tere